ay waay féexal sab xol ah original neexal pot te am original pur jus de fruits Sénégal ka faykan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw Sénégal ka faykan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw KPR transfert local la ñun ñoo ko moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko laaj na ay juge am ndax pare nañ laaj na troisième juge am mu ne ko waaw ndeysaan moom mii moo arbitre woon Reug Reug Sa Thiès mooy borom coow la laa ilaha illallah acca mu ngi noonu grand combat grand combat dimanche 18 août 2024 arène tey la bi di tëj ba premier octobre ndeysaan aca diggante Ama bu Malika ak Fils de Sadio ñoom ñaar ñoo koy léewtoo Ama wa nga ne tekk Fils de Sadio nga ne tekk di balancer ay loxoom di dóor aca Ama tàllal na loxoom tàllalaat ñoo ngay bëre à distance lii mooy bëre lii mooy bëre à distance ay ca mu ngi noonu ñoom ñaar ba léegi arbit nee na leen bëre leen arbitre sifflé war na nee na leen bëre leen fils de Sadio ak Ama bu Malika fils de Sadio Ama bu Malika Diaw ak Ama bu Malika ñoom ñaar ngay def placement bras boo ko déggee mooy ñu ngay lewtoo de Sadio ak Ama bu Malika moom lay pompé fils de Sadio Ama fils de Sadio Ama bu Malika ñaar ba léegi kenn nangu doon jël responsabilité fils de Sadio ak Ama fils de Sadio Ama bu Malika ba léegi fils de Sadio bu Malika ñoo ngay lewtoo ñoo ngay lewtoo fils de Sadio Ama ak Ama ba léegi Sadio Ama arbitre sifflé waan jox na leen mise en garde li youtube joxaat joxewaat Fils de Sadio Ama bu Malika ñoo koy bra blanchiment bras blanchiment bras Fils Ama bu Malika Fils de Sadio bu Malika

de Sadio Ama arbitre nee na ko taxawal moo Ama nga bëre Fils de Sadio ngay diriger combat bi Fils de mbokk yi ñaari xale yaa ngi bëre Fils de Sadio Fils de Sadio moo ñu ginnaaw Ama bu Malika de Sadio moo ñu wan ginnaaw ngeen ba pare teg lu zone li Ama bu dañoo xaw a nag tolloo doole. waaw mais. xoolee si bëre bi. Mhm. moo si gën moo si gën ne waaye na def naa. def naa daanaan la ñoom ñaar ku nekk ñaar. oh oh day jeex wala day jeex wala day jeex wala. ah lu xew. lu xew. lu avertissement. suñu bëriwaat. avertissement dafa génn si biir. waaw dañuy bëriwaat. dañuy bëriwaat ah 3 appels la. 3 appels la def. 3 appels la waaw 3 appels la def. 3 appels la bëriwaat. da ko doon jéem a posé de. mais Ama bu Malika li muy def baaxul. waaw da ko doon jéem a posé de. baaxul. te Sadio Ama bu Malika. ñoom ñaar ñi ngi damante baaraam. caméraman bi Bamba. waa Lutte TV dañoo siis oh oh. ama Malika xamaa bu Malika boog ni ma ko nii dafa mel dafay sóoraale adversaire am. boo xoolee moom tamit li def nii ku mënul bëre du ko def. waaw ah, mais nag muy sóoraale adversaire am. mënul bëre du def lii. kii moo ko si a nekk moo gën a waaw. maa bu Malika tuuti Sadio. boo xoolee ñoom ñaar ñëpp ku nekk ñaari defet nga teg waaw. moom baa yërmande dëgg waaw. waaye Sadio ama bu waaw Sadio Ama Baldé nga xam ne moom te tamit fal na ko gën na ko kon nag oh oh oh action continue mboot ñañ ca suuf ñañ ca suuf luy xew war na ko namba war na ko namba yëkkati na ko yoo yeggul daan na ko daan na ko fils de Sadio daan na Ama bu Malika daan na ko fils de Sadio daan na ko daan na ko da koo yenn dóor ko mu daan fils de Sadio daan na Bamba jëlal ma loolu Bamba demal ma gaaw ay waay fii xal sab xol ah original neexal pot te gu original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi fay say facture moo ci gaaw Sénégal ka fay kan ngi yegsi fay say facture moo ci gaaw KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégalais yëpp ñu consommer ko.